jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax amaat mbégte ak kontante saa bu ñuy jàkkaarloo ak yéen tey ji nag ñu ngi file ci maris seet si suñu yaay yi ma mama Awa Fall fas yéene nag sekkal ak moom waxtaan tey ku ne mama Awa Fall xam nga ko à travers li nga xamante ni moo di écran bi ci liggéeyam bu rafet waaye tey gannaaw problème bi nga xamante ni am na muy problème ki nga xam ne moo di Ndella Madior Diouf tey boo ne mama Awa Fall ne Ndella yaakaar naa ne am na lenn loo xamante ni sekk nañu ko muy wàllum liggéey mu nekkoon ci rajo ki nga xamante ni moo di Ndella Madior euh, kon tey problème bu amee yaakaar naa ne Sénégal wépp war nañu ci wax waaye rawatina moom mi nga xamante ne liggéey na ak ndeela Madior mu nekk ñoo xamante ni yu yàgg lañ lool loolu sabab fay suñu ay tànk ngir ñu ñëw rek am ay baat ak tontu yi nga xam ne dina dox suñu diggante ñun ak moom gannaaw ba ñu koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi xam ne ñooy safoo di seetaan site bii ko defee ñu daal di xuus dugg si waxtaan bi maman ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay di leen jox seen wàccuwaay ah, di leen euh, wax ne kontaan naa seen teewaay ci sama biir kër di nuyu àddina wërngal képp nag di nuyu ñi nga xam ne waa diaspora bi la di nuyu kilifa aada ak kilifa diine di ñaanal nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi yal na yàlla teggi leen nattu bi ñi nga xam ne it ñoo timit ñoom ñoo nekk ci kaso yi yal na yàlla teggi leen nattu bi ñoom dem ndax lépp ay nattu la ndax feebar nattu la macha allah waaye dugg kaso tamit nattu la yal na yàlla teggi leen ko ci daraja yeneen bi di ñaanal nag suñu réew mi yal na ci yàlla def jàmm jay Seydina Mohamed mama tey ñuy waxtaanee li nga xamante ni moo di actualité ndax gis nañu fi mu nekk nii moom uh, fi mu ne réew mi yëpp la la ñuy waxtaanee mooy li nga xam ne moo xewoon fële ca kër yërmande bu Ndella Madior Diouf uh, ci xele yooyu nga xamante ni yaakaar naa vidéo yi seetaan nga ko seetaan naa ko ñeneen ñi nga xamante ni ñooy seetaan site bi tamit seetaan nañu ko uh, ci xele yi nga xam ne ñii xiif nañ ñi ñu ngi doon jooy ñi ñu ngi doon def leneen ak toilette yeeg yëre xale yeeg yooyu tey gis-gis wala jàngat bi nga xamante ni am nga ko ci li nga xamante ni moom moo xew waa gis-gis bi moom gis-gis bi ma ci am moom la ci ñëpp am rek ku ne xam nga ne tubaarkàlla macha allah xale yërmande koy téye xale hygiène koy téye sàggante téyewu ko. du dëgg ak ni ma xamee Ndella Madior euh, sàggan na sàggan goo xam ne man gaw ma ne moom mun naa téye ay xale gaw ma loolu man waaw wax naa ko ci beneen site man gaw ma loolu ndi ko ne mën a téye ay xale ndax xale a ko yor. xol bu ubbeeku xol bu yaatu yërmande mooy téye xol xëy na nag amoon na ay amoon na yàqin pour téye ay xale mais Ndéla lu mu def lu ne am na lu ci gannaaw xam naa ko bu baax maanaam xam naa ne lépp léppam intere la Ndéla léppam intere la lu amul intérêt du ci dugg te ku ne xam nga ne xale yërmande koy téye xale xol bu yaatu moo koy téye dëgg du neex. xam nga mënoo yor ay xale mu feebar toll fi mu toll ndax xale bi doon bi doon apat ñëpp gis nañ ko mu soxla woon trop kooku hôpital moo ko moom lañ ko waroon a gis fekk mais fekk ñu ko hôpital ñu ngi ko fekk ñu tëral ko noonu muy muy muy kii noqeem yi xam ne kooku xale bi ku ko xool xam ne mu ngi woon ci wàccaay hmm, dafa yërmande dafa yërëm tulu dafa yërëm tulu da ngay xool xale bi xoola coono bi muy bi mu bi mu am daj yëpp avant muy muy muy muy dëddu àddina muy bébé Mohamed moom loolu ku ne ku ne sa yaram dawul boobu doo nit loolu ku mu dawul yaramam say sa yow kon sa yaram du daw bébé bu ndaw boo xam ne mi ngi souffrir nga attan ko fa bàyyi yóbbuloo ko hôpital jéem a fexe ñu ñu sauver ko mhm. mais loolu boo nee yërmande man gaw ma ne yërmande nga yor. maanaam daal kër yërmande ma loolu gaw ma loolu parce que wuyu wuyuwul turam yërmande boobu man gisuma mu wuyoo turam mhm. parce que xale boobu rek tubaarkàlla macha allah bu yërmande dee am xale boobu hôpital la ko waroon a fekk. ñu sauvé ko donte sax bu fekkee ne sax day dee sax ñu fekkee ne jël nañu choix yi mot ci moom bu yàlla dogalee ñu xam ne dafa ga dafa war a gaañu ñu xam ne dafa a génn àddina waaye jël xale bàyyi ko amul hygiène paan yaa ngi jóore mm, euh, euh, euh, fóot maa nga jóore ah yi ba fa gis xam ay babysitter xam ay nunu nunu yoo xam ne bariwuñ fa ci 48 ay 48 xale mais loolu dafa doy waar soxna si nay wante dëgg man dama jur te ku jur da ngay am yërmande dëgg neexul mais tut bi wuyul borom tur bi moo buy wuyuwul borom bërëbu yërmandeem boobu gisuma fa yërmande dëgg neexul ndax munoo yor ay noonu noonu bu la neex boo leen fayulee ñu ne ah réclamer seen seen seen ñàkk fay bi nga ñàkk fay nga dàq leen nga dàq ay noonu bëgg ay noonu di téye bébé bëgg ay ah, ah, ñu ñu ñu ay fóotkat di ñëw di fóot ah nga daq fóotkat ya pendant deux mois xale yi amuñu ku leen fóotal pourquoi pas wutul machine à laver wutul machine à laver li li ñuy wax ñëpp ko xam du lu ñu nëbb du loo ñu xam ne dañ koy làq-làqal il tànk nag ndee la ñu wax nag ay jikkoom te loolu du tey nag dafa yàgg ndee yàgg na di liggéeyloo ay doomi aadama te du leen fay dafa yàgg kooku ana yërmaande bi mu am même bu dul sax da ngay xool nit nga liggéeyloo ko ak liggéey ni mu méttee ñàkk doomi aadama ni mu méttee mu pare yaramam sax fendiwul te doo fexe ba fay ko fay ko xaalisam boo ñëwee ko nangam lay liggéey day wax waaw nga ñëw dugg liggéey du waxaale yow boo duggee liggéey ba tas du la fay kooku mën naa yor xale kooku mënul yor xale qu'on la vérité dëgg du neex li ñëpp a gis nag ñëpp a gi teg seen seen seen bët sénégalais yëpp teg nañu seen bët gis nañ Ndella ni mu yore woon xale yi def leen jug leen ci ay laa xale yi gis ngi leen ni ñu doon jooyee loolu loolu def naa ña doon liggéey ñoo ko filme wane ko ñi fi doon liggéey ñoo ko filmer wane ko wane ni xale yi eh, nekkeek ñoom ci biir kër gi ak ni mu li defanteeg ñoom ak nam leen di gérer ñoom nag bañ ñu mu accuser leen ko moo tax xëy na ñu génnee loolu ndax nee nañ suñ ko defulee nii bu ëllëgee danaan ñun la ndax ku ne xam nga ne la day accuser waate dëkk loolu moom jëkkoom la Ndella bu la war a fay fayu la day taxaw na la yaa def nii yaa def accuser la loolu moom jikkoom la qu'on la vérité loolu moom jikkoom la d'accord d'accord maman gis nañu gannaaw bi actualité bi génnee vidéo yi daal di fuité mbir mi def ba ci réew mi ñu si bari dañu wax ko ne Ndella Madior dafa doon liggéey ci xele yi maanaam bu dafa doon liggéey ci xale yi boo ko déggee dafa doon jël kii tuddee ko Ousmane Sonko jël kii tuddee ko Macky Sall jël kii tuddee ko autorité maanaam di dajale xaalis ci li nga xamante ni moo di xale yi yan kaddu yi tamit nga war a wax ci loolu nga xam ne ñu ngi koy wax ah mais eh, da ngay <laughs> yi ma ci war a koy moom waxoon na ko boppam biñ ko woowee wax ko enquêteur yi di ko ko laaj dafa ne moom da doon def da doon waaw loolu soxna si moom kay moom loolu ça n'engage que elle moom moo ne da doon ambiance moo tax muy tuddee diw di tuddee diw di tudd xool ñu ko neex mu tuddee leen ko kan nga ci dégg mu ne la Alaaji Maalik la tudd wala Serigne Touba ay autorité rek la ko tuddee maanaam loo xam les gens politiciens politiciens rek la ko tuddee tuddeewu ko fa keneen kurul kurul kurul ñoom wala wala koo xam ne bokk xalaat na nay moyen mën na fa génnee ñëw ci moom ñoom rek la ko tuddee ñu laaj ko lu tax loolu mu ne day doon ambiance loolu kon ça n'engage qu'elle mais dafa am loo xam ne ñii xale yi duñu ay mala xale ay êtres humains lañu ay nit lañu bu ñu leen toppatoo dañu mën nañ doon dara ëllëg xale yooyu nga gis ñu juuge noonu mu jug leen fu ne mu jug leen ci ay mat laa bu ëllëgee président de la république mën na fa juddu ay député mën nañ ci nekk am déet xale yooyu mënuñoo juddu doon président ki ki kii doon président da nga koo xam yàllaay xool li ko neex mu def ko kon xale yooyu mu teg fu ne mu jub fag fu ne mu jub fag ay doo ay nit ay nit la ñu ay bani aadama la ñu yow ma ci liir nga jóge ba tool ni nga toll man la même soos ki ñuy caméra laa même chose kon nag nit ku ne boo juddoo liir ngay doon ba ba ngay doon xale doon doon ah, ñagamaar ah, ba ba ngay ba ba ngay nekk mag kon donc dafa laaj toppatoo xale dafa laaj toppatoo xale dafa laaj hygiène xale dafa laaj fu ngeen nekk ak moom mu set xale dafa laaj ñu ah, ña fa nekk mu too leen ba ñooñu seen xel du nekk ci biti bay génnaat mooy bu weer bi dee nga ak la nga am lante ñoom nga fay leen nga topp too leen jox leen ñuy lekk di naan ba duñu xalaat ci biti mais soo leen joxul ñu lekk joxaloo leen ñu naan topp too woon ñi nga xam ne ñooy toppatoo xale yi na mm-hmm. day doy waar soxna si day doy waar mm-hmm. kon donc yërmande boobu muy wax man gisuma ko fa sentir ma fa yërmande li ma fa sentir mooy intérêt personnel am laa fa sentir mm-hmm. dëgg du neex nañ waxante dëgg ndelal li mu nekk ak ci dëkk bi dafa ëpp ba pare day génn di wax te nag ah gouvernement bi xaw nañu xaw tuuti sàggan ci loolu parce que yàgg na di génn di wax mm-hmm. mais xëy na euh, euh, nit ñi gouvernement bi sàggan ci nag ci naka may que ne kii ibbi euh, ne yërmande di day téye pépinière la tudd ma comme ni ñu koy waxee mais ko dafa war a am ay kayit mais nee na ñëpp nañu amul ay kayit pourquoi ñu koy bàyyi muy ibbi mm-hmm. sàggante mënu tawee si loolu nañu bàyyi xel nag ci réew mi réew mi dafa am yoon te dëkk yoon la ndee la amul droit di di ibbi di njël rek comme man tey tey rek ma ñëw sama appartement bi rek ma ne xaaral ma ibbi pépinière damay gàdd ay xale fan laa ko teg duñu ay xar duñu ay ganaar ay nit la yor ay être humain mais loolu daf ko war a teg ci yoon am ay kayitu leer ministre de la femme ministre de la kii ñoom ñëpp ku ci nekk ah, dugal ci si loxo mais ku amul kayit naka la ñooñu bana ñëw dugal ci seen loxo yaa ngi laaj ndimbal na na ñiy dimbalewu ma ñiy jàppalewu ma mais est que yow tegu nga ci yoon yow amoo këyit amoo dara ba pare nga bëgg nit ñi dimbali la ba pare affaire bi nga def ci business ci business am na koo xam ne dégg naa dafa am ay tolof tolof bu dee yërmande la wax ne moom la moom la moom la tuddee mbir mi te moom la wootee ki nga xam ne dafa am ay problème am këram xëy na ëmb na ci àll xëy na ragal na dem ci waa këram mais moo gënoon mu jël doom ci sànni ci mbedd mi mu daw si ñëw ñëw ci yow ne ah problème bi ak problème bi laa amee ne ko chaque fin de mois day ma jox 30 000 mun a jox chaque fin de mois 30 pour jënd couche ak li mu jëndee meew mais kooku su soxlaatee doomam doo ko jox nga ne ko soo ma joxulee 5 millions du ma la jox sa doom loolu fu mu am te nga ju te nga ëmb sa sa doom eh, juróom-ñeenti weer fu mu am léegi kon bu ñu ñëwee intérêt personnel bi loolu léegi feeñu. d'accord gis nañu maman comme ni ma ko waxee sànq bi may présenté nekk nga koo xamante ni yàgg nga ak Ndella majoor nga doon liggéey euh, ci rajo mhm. boobu muy Safir FM su ma juumul waaye en tant que voyante euh, tey ngeen nekk ñaar ñoo xamante ni yu yàgg ngeen tey bi nga déggee problème bi euh, ci sa xalaat bu gàtt jàpp nga ne moom Ndella Madior mën na yar xale yooyu ci maanaam si problème bi amutoon non non non non déedéet ne na ko yorul say employé non temps temps ñun nekk nañ ci kër ga xam nañ kër ga fa lañ doon liggéeyee ñu fa jaar bari nañu ñi fa jaar bari nañ de waaye gisoo fa kenn ku fa jaar toog fa ku fa jaar après dangay dem sa yoon parce que doo fa gis lu la neex mënuñoo nekk ci kër gi nag ñun amuñu lu ñu neex suñu xol seddu ci moom ndax bu ñu liggéey loolu du ñu fay ba pare nga ne yow da nga yor ay xale loolu moom mënta nekk man mosuma koo gëm ndax day yor ay xale nii man gaw ma ko ma gëm ma man leen non non non mënta yor ay xale xale xol bu yaatoo koo yor soxna si ku mën a liggéey ay nit ba weer wi dee romb leen fayoo leen boo ko sonee mën nga yor ay xale waxoo dëgg waxoon naa ko ci benn sit damay delluwaat di ko waxaat di la liggéey noo jànq boo xam ne elle était may xool jànq bi mu mën liggéeyi ma ne ko ndee la kii bul saagaan mu rëcc la kii ko mën a liggéey la mun ma wëy kii kay nangam nangam xale bi di daw safaak maro wala daawul lekk danaan tàgg danaan togg ba pare tag lekk bi daw daw dabaat ci liggéeyam kooku benn jour dama dem Massi Kassor di xale bi dab ma maman maman awa maman awa ma gëstu muy moom man waaye ñoo def gëj naa la gis mu ne man de mujj naa bàyyi ba tey kii diw fayu ma mi ngi ma yore ñetti weer xooma naa nga mi weer ma ne ko ah kon yow fayu la ak yow yow ni nga bravé woon mun ma wallaay fayu ma mais kooku kooku mën naa yor ay xale mm. mais daal li nit ñi di wax ñoom ñëpp que ne seen Ndella ak intérêt njabootam rek moo ko ñor ah, mais loolu lay nduru soxna si mm. ndax ay doomam jooyu ñu dara ah, qu'on di la vérité ay doom dañuy lekk ba suur naan ba màndi moom moom kay ñi mu yor ci biir këram ñoo xàppiwul ñi mu jël employé yi mu jël ci biir kër gi ñoo xàppiwul mun na leen a jël nag loo ko fayee ko mun la waa ñëwal ba nga ñëw ba toog aha pare na ci yow liggéeyal ba tas yoonam newul ci yow danga koy woo du la wuyu defaa nga woo ko sax mu menacé la yëpp da koy def waxuma ko pour yàq dara wala pour dara mais li ma dund ak moom yaa ma ko laaj loolu laay wax Ah, ah. d'accord maman ginnaaw bu mbir mi amee tamit coow li daal di génn eh, dégg nañ ne si eh, biir eh, li nga xamante ni moo di kër yërmande boobu am na six xale yoo xamante ne ni daal di nañuy ñàkk seen bakkan ci information bi mujjee génn te ki nga xamante ne ni moom moo doon suul xale yooyu nekk ki nga xam ne moom tamit animateur la nekkoon ci rajo Ndella Madior Diouf boobu ndax mën nga ñu ci am loo xamante ni leeralal nga ñu ko foofu tamit noo kii doon suul moom ak euh, bu dee euh, animateur la woon ci rajo boobu kon xëy na fekk na ma jóge fa ndax nee naa la euh, bi may jógee ci rajo bi boobu affaire xale yi amu fa boobu émission voyante moo fa am ak ay téléopérateurs yi daan ñëw ak xale yi doon jàng affaire journali journalisme ak ñuy jàng affaire téléopérateur maanaam ñëw def affaire rajo ñoom ah waaw ñoom daal laa fa laa fa bàyyi woon man mais ñi nga xam ne dañ fa mujj waat ba koy gérer ba koy suulal ay ay ay bébé loolu yëguma ko wax dëgg yàlla loolu je n'étais pas au courant waaw parce que boobu fekk na ma bàyyi. moom la nekkaloon amoo ci kenn waaw loolu du ci ñàkk ndax am na ñu ko jege woon loolu ñoo xam ne ay complice am la woon. loolu moom am na ci moom mais mënu ma cee parce que fekk na ma génn fa wax dëgg yàlla waaw moo di euh, Ndella xale yi mu euh, yor ko xam ban réaction nga metti ma trop parce que xale ay mëminu yàlla lañu xamuñu dara. Mm-hmm. waaw ay xale lañu xamuñu dara. Mm-hmm. xëy na intention bi mu taxoon mu mu mu jël ko ah moom moo xam mais daal waru ko daal moom daal yor ay xale daal waru ko boo bëggee dégg-dëgg. Mm-hmm. amul xol bi non je la connais. mënta yor xale. mënta yor xale déedéet mënta yor xale dëgg neexul. amu sa jot bi mënta yor ay xale. ta nekk mënul ne waaw mënul ne te gis nga ko tey jii ba bi yëf yi feeñee def naa ne lu ñu doon nëbb yëpp feeñ naa man du man maa koy wax mbir mi yëpp ñëpp a koy gis. Mm-hmm. internet foo dugg boo demee soleil da nga ko fay fekk l'observateur da nga ko fay fekk fépp ak fépp nag mu dem nga dugg ci site internet bi gis nga gars yi ni ñu ko waxee mm-hmm. ñëpp ko ñaawlu ñëpp ko ñaawlu ndax ku ne xam nga ne xale moomu nu yàlla la mm-hmm. la tamit yenn saa yi yi duñ ci am yenn part de responsabilité. bien sûr bien sûr mën nga xam ki ngay jox sa doom. te nag am nag dénkaane nag doom ak bakkan na mu fooree ñoom bu ñu leen dénkaane wala si dinañ mel ni. ne woon dëgg aussi. Mm-hmm. parents yi war nañ wax ci ñoom. xale yi tamit nga xam ne ñoom tamit doy na waar daal soxna si bu ñu waxee lépp fii la ñuy fanaan ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mais daal doy na waar trop doy na waar doy na waar yoo xam ne doy na waar daal lañ mën a wax mais daal jël sa doom di ko teg ci loxo yoo xam ne xamoo yéen façon loxo la ñu jël sa doom doo xam na mu toogee xamoo dafa xiif xam nga xale yi nañ doon jooyee loolu jooyu xiif la xale yi nañ doon jooyee jooyu xiif la parce que am na ci euh, vidéo ba ñu wanee xale yi dañu doon jooy jooy benn ñaata ñaata ñaata noonu nga fa gis non deux j'ai vu que deux noonu ci vidéo boobu loolu laa gis deux noonu laa fa gis léegi ana yeneen noonu yi ana ñu nax xale yooyu 48 bébé ñaata ña foofu war na am ay noonu yu bari mais gisuma fa ay noonu yu bari nit loo mënul sa doole attanu ko dangay bàyyi loolooy dëgg loo mënul bàyyil. ci xiif googu nga xamante ne xiif nañu ko xale yi fi nga ne si doole àttanu ko est que tey sénégalais bu ñu ko jàppale ci dund bi si dañu am dëgg gis nga dëkk bi dëkk loi la mhm. noo nekk ci dëkk bi recruter ay xale ay bébé yu ay bébé yu ay innocent amoo këyit teguloo ko ci yoon nga bëgg nit ñi di la dimbali. ne wante dëgg mhm. teguwul ci yoon nit na boo tegul ci yoon dañ lay xamal na la yow teguwoo ci yoon ma li may wax ragaluma ko. je di la vérité dëgg nag du romb ay nopp mënul ñëw def fi dégâts bu rëy bu toll nii ñu naan xamal li ngay wax ak boo duggee ci sa site internet man loolu sama yoon nekku ci li ma dund ak moom dama koy wax xam naa ko du fay ay employé mais mbiru bébé moom ba ma fay jógee bàyyi ma fa mbiru bébé dëgg dëgg neexul ni ko ñëpp xoolee ci internet bi noonu laa ko xoole ci internet bi man man mi xam jikkoom nag daan nekk ak moom suba ba gent bi soo am naa lu ma xam ci moom suñ ma waxee ndax Ndella day naan dama naan non non parce que gisuma ko muy naan sàngara Ndella day tox ma ne ah bëgg ko mosuma gis mu bëgg ko loolu moom sañ naa ko ko loolu moom mosuma teg sama bët kon dama koy wax mais sàggante ci nit ñàkk jox nit ñi warma seen warma ak ña mooy mooy mooy warma bi dafa nekk ci moom dëgg neexul mu liggéey loolu du la fay loolu moom lu ne ci moom la loolu moom on a discute même pas. xamu Dakar ndax man mi loolu ma fa jële loolu moo ma fa jële fayu ma fayu ma ma nekk di comme convoyante di liggéey di seet di liggéey ba weer bi dee fayu ma ma ne kon xam benn weer la mën naa ko muñal ma toogaat deuxième mois fayu ma man liggéey naa di nekk à la rajo di dem di def émission direct mu may ma télé télé télévision 32 pouces bi la ma mayoon en direct la ma ko mayoon par émission mais boobu mu ngi fekk mu ngi ma yoro ñetti weeru euh, ñetti weeru euh, salaire dëgg neexul man sama salaire boobu laa gis parce que moo ma ñora ah. parce que moom laa liggéey sama ñaq la maa ko moom mhm. mais fayuma ko ba tey ba sànq nit nag xam nga nit bu la joxee teraanga yi donte tele la ma may doo ko xeeb lu ma fi nekk di xuloo di xeex dama ko romb dem toog sama toogaay bopp dégg ankay déggaat naa ko boobaak léegi déggaat nag ndax ànd nañ fi ci euh, confrontation bu bisu ngoone ñu def fa émission ma ak moom après ma dellu si waat par la suite nag mënatu woon si poto loolu ma toog sama kër di liggéeyal sama bopp jeex na waaw ku ne dem ci actualité bi xëy na bi mooy nekk euh, dernière question bi mu nekk ci groupe whatsapp bi nga xamante nii ni tamit euh, nee nañu Ndella def ko ubbi woon maanaam di ci boole di jaay ay jigéen ak ay góor loolu tamit ndax mën nga ñu wax tuuti ci mbir moom loolu moom déggoon naa la man loolu sama yoon nekku ca ndax fekkewu ma dugguma ca whatsapp ba sama yoon neewu ca mais loolu am na loolu moom am na waaw groupe whatsapp bi moom am na waaw mais nag dugguma ca xaw ma ñu ci nekk lijjantiwuma ko sama yoon nekku ci mais moom loolu moom am na. ndax bi. Mhm. ñi si dégg naa dañuy fay chaque fin loolu moom am na. dañuy fay chaque fin mhm. jigéen bi lii lay fay parce que moom sax moo ko waxal boppam ah. mhm. waaw. yaa ngi koy dégg. moo ko waxal boppam nit ñi waxuñu ko de moom moo ko wax. nee na waaw parce que jigéen ñi nangam nangam léegi jigéen lii lay fay góor lii lay fay. moom moo ko waxal boppam waxuñu ko de. c'est même qui l'a dit ah moo ko waxal boppam te ku dugg ci ci internet bi tàppe ko incha allah yàlla di nga gis euh, euh, lim ca wax yëpp kon ñun waxuñu ko moom moo ko waxal boppam. donc loolu moom euh, aw ma ca lu ma leer leer parce que bokk ma ca. dugg ma ci groupe WhatsApp boobu sama yoon newul ci groupe WhatsApp boobu mais daal moom wax ko waxal boppam moom. waaw maman ñu bàyyi la nga daal di uh, tàggatoo comme yow it da ngay daal di yëngu ci li nga xamante ni moo di wàllu seet nga nekk ci jàmbaar lool nekk ci koo xamante ni ràññee nañu la ko ci réew mi uh, comme nit ñi ni ñu koy waxee rek képp koo xamante ni wax nga ko ci rek li nga koy wax a du deñ ndax day ànd ak li nga xamante ni moo di ndogalu yàlla ak sa xam-xam waaye tamit nga daal di tëjee foofu joxe waale rek numéro bi képp koo xamante ni bëgg na seetlu rek ak naka lay def. Mm-hmm. waaw bu baax baax ndax booy xoolal doomi aadama yi ñu ci am seen seen xol di ci sedd sant yàlla la ndax li ma yor yàlla ma ko may li ma naan chaque jour gëw may jinne gëw ma ay rab waaw li ma yàlla la yàllaa ko wax ca alxuraan li ma bind nit a ma ci gënal kon donc du may ma dégg loolu ba pare di jël ay rab ak i jinne di ko def ci sama bopp déedéet mais damay gëm ne man yàlla may na ma te maa ngi sant yàlla ci loolu bu baax a baax ndax nit de mosuma ko xoolal ba macha allah ba mu xarab ma wala ña xolam ñàkk sedd ci man au contraire dama leen di seetal ba pare ñu di ma ñaanal am na ci ñoo xam ne dañ may joxi kado kon donc buñ ci woon gis seen bopp ah, ah, duñ ko def du dëgg waaw di sant ñëpp nag di leen gërëm bu baax ci seen teewaay di ñaanal nag suñu na ci yàlla def jàmm ma xam ko bëgg a contacter rek numéro bi boobu 21 84 21 ci kàttanu yàlla ak mbaaxam wala nga def 77 910 18 77 su ko defee rek ci kàttanu yàlla ak mbaaxam di nga jokkoo ak Soxna Awa Fall jërë ngeen jëf ci seen teewaay. merci beaucoup maman ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbokk internet yi nga xamante ni yéen a ñu doon toppandi ci seen biir di wasaare ginnaaw ni dañ leen ko waxee woon tey ñu ñëw seet si maman Awa Fall moom tamit mu nekkoon ak ki nga xamante ni moo di Ndella Madior doon liggéeyee foofu ca Safir FM dégg ngeen li nga xamante ni jot na ko joxe ci li nga xamante ni moom moo xew ñu koy jaajëfal bu baax a baax xam nañ ne sax temps amul waaye xëj-xëjal nañu ko ci waaye tamit joxe na li nga xamante ni moo di numéro am ngir képp koo xamante ni bëgg nga seetlu moom tamit mu nekk ku yàlla baaxal waaye tamit ku yàlla may xam-xam te may ko li nga xamante ni moo di ab euh, gis-gis ci li nga xamante ni moo di seet mu nekk koo xam ne lu mu la wax takk ko téere te xam ne loolu du deñ képp koo xamante ni soxla nga ko mën nga ko woowee ci numéro bi nga xamante ni daal dina koy joxe mama jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la remercier suñu yaay ji kontaan nañu bu baax di jaajëfal al amin internet yi nga xam ne ñoo def seetaan site bi di wasaare rendez-vous beneen yoon incha ak yeneen actualité ak système benn taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke bu mag bi jaajëf